ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fi ngeen ko bëggee foofu lay xewee xale yi gis a yëngal Thiès qui événement exceptionnel muy un grand bégué le grand bégué de Thiès ànd ceeg à ah Sénégal jóge États-Unis toj ko Pape Diouf et la génération consciente Nenak, Mom de ndewenalam Thiès la koy andil pour une soirée en exclusivité ce samedi 25 août tous les chemins mènent au Sams Prestige Club foofu Rekle, la ñu Pape Diouf et la génération consciente en spécial ndewenal sous le parrainage de monsieur Maodo Malick Mbaye directeur général de l'ANAMO monsieur Mamadou Clé l'excellent président directeur général de la société Yara spécialiste en management, monsieur social, monsieur Pape Doumbia, DG, groupe Prestige Chess and Kan, monsieur Ndiambe Djei, mon moom Bobu tout tudd mashallah, gagné grand prix chef de l'État pour 2018 B, monsieur Habib Kane réseau pour le développement de Chess, délégué liggéey lu du opérateur économique monsieur Babacar Diallo responsable politique Fiti Chess, M. monsieur Sireja, monsieur Diouf responsable APR Corona. Paul 1 Thiès Ouest M. Babacar Pascal John Moyeré mouvement Dolil Maki Omar Sey Sey Latir administrateur Thiès Info le grand bégué Mungen ngeen Sen Aï ay salon ndaxte boo leen nekkee supp ndaanaan woote 77 246 99 wala 77 655 53 95 le groupe se Prestige Dylan souhaitait une très bonne fête de Tabaski Dylan Wach wax déwénati kaay Andando ñu àndandoo ak Pape ce samedi 25 ñu jox